fàttali woon Niger Guinée ak Sénégal ñeenti réew yooye ñoo bokk ci programme bile ñeenti réew yi nag li ëpp ca lañ fay dundee muy lii di ceeb mu doon céréale bi nga xam ne bëri na luñ koy jëfandikoo ba tax ñu tànn ko ci programme bi war cee gunge nag ñi nga xam ne ñoom ñooy jigéen ñi nga xam ne ñu ngi yëngu ci wàll wi. waaw programme bi ci uh, ñeenti domaine la daal di uh, soxala day laal li nga xam ne kat uh, mooy wàllum post production ci chaîne de valeur ak it ñi nga xam ñooy jigéen ñi mën a daj ci wàllum financement ak li nga xam ne kat mooy processus bi nga xam ne moo ñeel wàllum production programme bi tamit day tax ñu daal di tàggat jigéen ñi financé leen laataa ñuy investir ci chaîne de valeur maanaam ci nga xam ne mooy wàllum ceeb bi. in the rice value loolu nag doon politique bi nga xam ne ànd na bu baax ak ay ambition nguuru Sénégal nga xam ne mu ngi jëm ci wàllum moom sa bopp ci wàllum dund. waaw jigéen ñi dañoo am wàll bu rëy si mbayum ceeb mi parce que ñëpp gis nañ Sénégal soo génnee nawet dem si biir réew mi foo tourné tool yi jigéen nga fay fekk. loolu moo tax lépp luy contribuer rek si yokk production ceeb. donc jigéen ñi dañ ci am wàll dañ leen ci war a dooleel moo tax projet bii di ñëw fekke yeneen projet fii nekkoon donc dana delloowaat jigéen si place am bañ mën a compter moom pour mën a yokk suñu production ceeb. ngir mën caa yegg nag ministère de l' agriculture di xamle ne am na ay jéego yu ñu war a def. suñu stratégie bi nga xam ne président Macky Sall moo ñu ko santoon pour ñu tëgg ko mu war a commencé deux ba nga xam ne cinq mille milliards la foog nañ ne stratégie bi suñ ko dawalee fii ba deux mille vingt 2028 danañ am production bu nga xam ne dana tax dootuñ jënd ceeb te dinañ ci lekk ba pare jaay ci bitim réew. yokk financement yi gën a fexe ba jigéen ñi mën a jot itam ci suuf si loolee bokk na ci li nga xam ne programme bi dëgmal na ko ngir yombal jigéen ñi ñi nga xam ne bëri nañu li ñuy yëngatu ci wàllum mbéyum ceeb te nag teewul bokk na ci ñi gën a néew ci nga xam ne ñu ngi ciy bénéficier.